mais dañuy demaat ci dernière menu bi bi nga xamante ni tey dafa concerne les médias dañu gis ni que jamono ji ci plateau yi on voit des gens yoo xamante ni ay chroniqueurs lañu xaw ma ay éditorialistes mais parfois ils sont toujours contradictoires par rapport à seen propos ba nopp dañuy yor benn manipulation bëgg ko indi ci kanamu peuple alors que dëgg bi ñoom xam nañu fu mu féetee ba nopp duñ ko plus particulièrement bu njëkk ñu ko rañé won wal fajiri mais daf mel wal fajiri wàññi nañu sen dose mais jamono ji sen TV lañ koy gis ci kanamu ki nga xamanteni moy c'est Serigne Saliou Gueye Serigne Saliou Gueye actuellement tous les Sénégalais se posent la question c'est quoi son problème ak correct ñu yor tribunal journalisme lan lañuy xaar pour wax ak Serigne Saliou Gueye ñii di Synpics lan lañuy xaar pour wax ak Serigne Saliou Gueye ministre de la communication lan lañuy xaar pour wax Serigne Saliou Gueye parce que le sénégalais le plus lambda bi nekk Sénégal comprendrewul dara il regarde Serigne Saliou Gueye day naan kii moom du journaliste kii dafa soxor loolu laay dégg ci sénégalais yi donc dañuy déglu ji débat yi nga xamante ni ñaari débat la bi ci njëkk Serigne Saliou Gueye la ak Ibrahima Pouy ñoom ñaar ñoom ñu bokk benn média contradiction am ci biir plateau bi Serigne Saliou Gueye li mu wax mu xam na ni que li mu wax du dëgg Ibrahima Pouy nek ci bir di ko ko liiral par ben ben manam lu ñaaw la bi ci top démb la am ci ndumbelaan digganteem ak nga xamantene moy invité bi gumbala. ak nu mu mënte invité la ci ce plateau il mérite un petit respect mais Serigne Sall Gueye ne respecte plus personne il est envoûté par une haine xawma nak Macky Sall wala état du Sénégal lan lañ ko def ba Serigne Saliou Gueye bëgg a jël enam bi sotti ko amoon na en mais bu mu génnee prison ba tey jii dafa melni ni bi dafa gëna yok yalla nak mo moo ne àdduna da ngay am xol bu rafet am njort bu rafet est-ce que régie yi vidéo Serigne Saliou Gueye yi pare na muy der vidéo yëpp ñu seetaandoo ko après del ci commentaire yi ginnaaw ñoom yër ñoom c'est à partir maintenant de ça ci la ñuy génnee des notifications de radiation ñi di wax fi ni décision contumace li ñi wax amul benn décision judiciaire jusqu'à aujourd'hui boo xamante ne nii ñoom Ismaïla Madior Fall génn nañ ko teg ko ci kaw. mais wax na ko de Ismaïla Madior Fall. mais dama ne dama ne non waxuma wax non non Abdou hmm. dañu leen défier dañu leen mais génn leen décision bi loolu kay na xam nga boo fekkee ne yow da nga ne damay tumal nit pièce nga yore da nga ci pièce yi da ngay naan pièce bii moo condamné waa ji pièce bii notification de radiation bi démb ñoom maître Ndoumé woon lu ñu wax ñu ne notification de radiation amu fi. loolu wax nañ ko waa DG laaj nañ leen ko wax nañ ko waa DAF dañ leen notification notification de radiation ba tey jii amul yéen a fiy toog naan dañ ko rajo dañ ko rajo waaw d' accord léegi ñun jox nañ ñu notification bi nit kay boo ko boo ko rajee même ay ay ay ay dafe ba mu demee dañ leen da ngeen a rajo Ousmane jox leen ma notification de radiation bi bu ko fexee su boobaa ñoom ñu xam ni ñuy def mais yow dañ laa raje ci ay wax alors que l' administration on a dit c'

Je nga vous wax fii euh, waxu notification gis nga buñ administration au Sénégal une lettre de notification pour retirer les retiré nañ Ousmane Sonko ci liste électorale ministère de l'intérieur le 19 septembre 2023 la une notification y ci une notification mu est objet de notification de retrait sur les listes électorales référence lettre numéro 0620-P-D-DK du 2 août 2023. Par la présente, l'administration vous informe, M. Ousmane Sonko, né le 15 septembre 1974 à Thiès, de votre retrait des listes électorales suite à votre condamnation par contumance par la chambre criminelle du tribunal de Dakar, de grande instance oh. hors classe de Dakar à deux ans de prison ferme je vous en souhaite bonne réception lettre bi ci boppam adressé nañ ko fépp foo xamante ne war nañ ko ko yóbbu mu ngi nii ñu signification d'une lettre boo xam ne moom la ñu ko féetalee mu ngi nii bu écran bi génne woon ñu lettre baa ngi ci réseaux sociaux yi mu ci presse bi mu ngi fépp tribunal de Dakar affiché nañ ko fa état du Sénégal administration le bind du verbal du wax état du Sénégal ñoo la gën a xam ne bu ñu demee ba rajee Ousmane Sonko danañ ko andi lettre de notification buy wane ne raje nañ ko il faut qu'on soit un peu conscient que les Sénégalais la ñuy wax ñun nekkuñu fi pour Massamba wala pour Mademba mais nous avons l'obligation d'éclairer les Sénégalais radiation n'existe pas alors ça ça n'existe dans ta tête et de et paree ko defutit et que les Sénégalais sont très lucides et très politiques manam wop rek yobou len boo wop defene Sénégal yi les lay tass dañuy lank amna certains par exemple journalistes quand tu les entends tu as envie de t'enterrer dans la terre tellement ils disent des conneries ils se disent d'abord très proches même de l'opposition bo len déggé da ngay et j'en ai entendu des journalistes yo xamné mais ils prônent ñi coup d'état Ah barke sëñ Touba maa ko dégg ñi théoriser fi coup d' état ñu ne bu il faut un coup d' état coup xam nañ li muy jur pays yi fi def coup d' état yëpp fan lañ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 Déthié Fall moo fi ne keneen néew. ah mu noonu waa kay loolu wàcc daanu ci gën a gaaw keneen fi ne wàcc daanoo ci gën a gaaw. si Ewa ne pas là c'est Déthié Fall. Ah, d'accord keneen néew mais wàcc moo daanoo ci gën a gaaw ñàpp doo nga fi ne. Ah, d'accord ku leen di élire fii. ah mais tu as un candidat mais les les autres aussi loolu ngay théoriser Saliou Saliou ngay lépp lu yàqu fii dans l'opposition yaa ko yàqu. Ah, keneen néew ah mu noonu waa kay loolu wàcc daanoo ci gën a gaaw. keneen fi ne wàcc daanoo ci gën a gaaw. si Ewa ne pas là c'est Déthié Fall. d'accord keneen néew mais wàcc moo daanoo toog ci plateau di wax ay xale yu ndaw di génnee deug bi di ko teg ci table bi di du ci mën dara en tant que kilifa yow tay ban jangat ci li nga xamantene ki di Serigne Saliou Guèye mu ngi koy def ci plateau yi nga xamantene ci lañ koy sétane xam nga Zeyna man damay rejoindre rek li la wax sànq man la souvent on nous parle de délit de presse délit de presse ça n'existe pas su ma la délit de presse ça n'existe pas délit par voie de presse bon Serigne Saliou Guèye ci délit par voie de presse la am looloo ko fi juraloon ñu arrêté ko teg ko sous mandat de dépôt may ko contrôle judiciaire tey yaakaar naan ne soo nee éditorialiste nga di ko tiitaroo di ko bàkko ko danga ko war a teg ci dëgg. Mhm. lal ko ci loo xamante ni ñi lay seetaan dañ lay nawloo mais sëñ Saliou tey képp kuy journaliste nawloo woo ko parce que magum jëmm nga war a rus sa âge magum jëmm nga war a ruus ñi lay xool magum jëmm nga war a ruus serment bi nga prêté woon en tant que nit kon da ngay jàkkaarloo caméra du question ni yaa gën ñëpp. yàlla dala boole ci ñi nga xamante ne war nañu wax ñu déglu leen ngallaawaay ñi ngay waxal dee leen jox dëgg Serigne Saliou tey su ne Ousmane Sonko radiation ci ay kàddu la teg je crois que diffusion de fausses nouvelles la def foofu foofu rek yoon waroon na ko fekk ci plateau bi daal di koy yëkkati ndaxte nit mën na déglu sëñ Saliou Gueye foog ni loolu mooy dëgg taxaw mu mer ci saa si naan non état bi lu ñuy def du yoon dañ ko jaar pourquoi état administration moo ko tënk lépp lu ñuy def ci këyit lañ koy teg Serigne Saliou Gueye mu xam ne ni que radiation Ousmane Sonko dañ ko ko notifié condamnation par contumace ñu notifier ko taf ko tribunal taf ko mairie taf ko fépp. mu xam ko mu leer ko nañ. mu taxaw ne plateau kenn tegu ko fen maanaam fan lañ ko teg nee na nee na ñu ko teg ci wax. lan moo njëkk a contredire sëñ Saliou Gueye mooy euh, recours bi ñu def. déedéet oh, avocat Ousmane Sonko comme ci wax lañ ko de ñoom ñu loi donc lan moo tax ñu dem Ziguinchor yóbbu fa dossier bi fan lañ de ñoom. donc je lay dire ni que mag soo toogee ci plateau doo C'est sëñ Saliou n'est plus un journaliste ni un éditorialiste je crois que il a une haine contre le pouvoir il n'est même pas avec Ousmane Sonko hein. La am aime contre le pouvoir gis ne ko Ousmane Sonko mi est dans le pouvoir bi mu ñëw bëgg appuyé wu ci Ousmane Sonko pour attaquer le pouvoir mais Serigne Saliou Gueye c'est que il ment sur toute la longueur d'onde parce que tout ne ci parole lañ ko teg Ibrahima Pouye la démenti sur le champ lire le mm-hmm. notification boo xamante dit, xam na ko su dee nag wax dëgg da ngay ci plateau te xamoo li ngay wax bëgg le manipuler peuple et pourquoi c'est Serigne Saliou Gueye seulement qui a des problèmes sur le plateau avec les invités parce que moo nekk débat tendu yëpp contradiction yëpp Serigne Saliou Guèye la et puis il se fait comme ça avec kanamam bu saxar ci ñuulal ko ko mais nit da ngay am yermande quand même dafa dem ba nga xamante ni dafa iñaan wala dafa soxor tey est-ce que li la ñu soxla ci presse li motax ñun journal ci ñuy saga suñu nday mm-hmm. li motax tax kenn respecté wul benn média parce que Serigne Saliou Guèye tay li muy def. ña nekk ci biir kër ga di directeur de publication di directeur yi xam nañu Serigne Saliou Gueye du dëgg mais pourquoi ñu bëgg ko bay toujours sur le plateau pourquoi il n'hérite pas des sanctions nit ki am noo xamante ne faute soo ko defee da nga koy sanctionné maa ngi déglu barki démb Youssou Ndour ne dañu demoon États-Unis doon tëgg mais par hasard muy joué mani di bangoo xaw ma lan defal ko benn surprise yéeg ci kaw seenam nee na moom loolu non Pascal Obispo koo xaw ma mu neen loolu rêvam la woon ñu pare mu nekk yoroon son bi ana enregistrement bi kooku ne ko non ko nee na ci saa si la ko jëndal billet mu delluwaat Paris continuer wul tournée que dafa am ay faute yoo xamante ni faute lourde la mm-hmm. Serigne de Sen TV di def ay diffusion de fausses nouvelles en se basant que si radiation Ousmane Sonko par contre bi kenn notifié ko ci làmmiñ lañ ko teg muy ay fen yu xeb catégoriquement sëñ Saliou je te dis que tu mens sur toute la longueur d'onde parce que da nga fen ci télévision ma taxaw ci télévision newaat la da ngay fen sooy waxatee ak askan bi wax len luy deug seigne Saliou Gueye et respecte le peuple sénégalais ëppoo fi ken lamine dàqoo fi ken wax dàqoo fi ken jang ñi la dàq jang ba yeen seen keuy ñofi nek tok ñi la dàq analyser ñi la gën a pertinent gën la cohérent gën la constant ñoo fi nekk bul yaakaar ni tu as le monopole du parole tu n'as pas le monopole du parole Serigne Saliou Gueye on t'a laissé trop de choses sur ton plateau de Sen TV bés bu ñu jàkkaaroon nga xam ne yàlla julli la santaane xamadi woo reewoo da ngay reewantu reewantu lu magum jëmm nga da ngay yar sa bopp xam ne que am na ay nit yu lay seetaan ci plateau yi soo demee nag ba xamatoo lolou da ngay wacc plateau bi jox nit ñi respect parce que yéen tek sen télévision ñu am ci accès kon donc ku ñuy seetaan da ñu wara respect ñu ne respecte pas le peuple sénégalais Serigne saliw comment tu peux mentir mensonge jumel ni Ibrahima Pouy xalé bu ndaw ñëw taxaw dila démentir dila la ku su dee notifié wuñu ko ci lamine lako tek Ibrahima Pouy lu muy lire liir fan la boko jëlee da ko inventer peut-être mak mo buy fen mo gëna a bon rax ci dolli nga wara yërem sa tour biñ la tuddé muy sa Serigne Serigne hmm, ci rusee ko lolou

tant que Déthié Fall nga bëgg a wax nangam mais l'invité a le plein droit de défendre les positions parce que Goumbala est un politicien AFP la ne woon bu Moustapha Niass Serigne Saliou Gueye tu n'es pas politicien un politicien peut il soit yow tu es là pour le peuple ñàkk xamadi li Goumbala xam xamu ko lu Goumbala xam moom xamu Goumbala était là de Senghor Moustapha Niass ñëpp jour mos naa dajeeg moom fii Baobab ci benn cyber may mais bobu maa ngi def ay émission mais Gumbala jox na ma ay révélation yoo xamante ne ñemewu ma teg parce que loolu bu muy am du sama jiddu sax kon il faut que ngay respecter nit ñi mais il est sur le plateau Ndeye Fatou Ndiaye mu kër Ablaye Mbow Alioune Sow mu dal débat trop tandi xol ko suy wax non je suis éditorialiste hein je suis auditorialiste hein wala c'est dans le débat hein mais éditorialiste ça veut dire que quoi <laughs> auditorialiste mooy lan. en tout cas non damay bëgg xam éditorialiste mooy lan. su dee éditorialiste boo xamante ni fen nga nekkee ak lëmbee dëkk bi mais dafa jëriñ nga koy bàkkoo il faut que Serigne Saliou Gueye respecte le public sénégalais et respecte les plateaux mooy li may wax rek gis nga anarchie bi tax bugguma Bougane Gueye Dany nekk président lii bokk na ci parce que sooy xeex dara ci nguuru Macky Sall yow yàlla dénk la benn entreprise da nga war a fexe entreprise boobu doon modèle doon référence ba kenn du ci am sikki sàkk mais da nga am entreprise boobu nga mënul gérer mais man dinaa xalaat dénk la Sénégal 17 millions d'habitants jox la loi yëpp ak décret yëpp xalaatuma ko xalaatuma ko te képp kuy senegale fii nga war a basé wu Zeyna. Mhm. Zeyna Olaf Ndiaye nee na la lu feeñ ca sëy ba nuyoo woon na ca ngoro ba noo am far mu lay doxaan di saaga sa ndey di la mbéj di la wulli gauche ak droite nga ànd ak moom ba sëy mhm. bu ngeen nekkee su la takkee ci lal bi di la làppi làppi xam nga ni waxoon na ko bu yàgg. Mhm. kon yaakaar naa ni tey dafa am loo xamante ni képp ku aspiré diriger réew yàlla may la benn entreprise entreprise boobu dafa war a doon modèle mais Serigne Saliou Gueye n'est pas seen TV dañu waxtaan wax dëgg Seyna. en tout cas lu ñu wax. ce qu'on peut comprendre mooy média bi dañu am part de responsabilité correct mi ngi nee pat Synpics mingi ngi nee pat Ampers mi ngi pat te saa yu ñu leen woowoon tey Serigne Saliou lu mu def nii est-ce que xam nga ni diffusion de fausse nouvelle la. mu jaar la ko par délit par voie de presse. parce que li mu wax ni que état bi maanaam ci wax la ko sukkandiku ay avocat Ousmane Sonko ñoo ko njëkk a weddi ñoom ñu jël recours dem yóbbu ko Ziguinchor fan lañ ko basé kayit lañ téye kayit bi tax ñu rajo Ousmane Sonko lañ yóbbu yow nga ne kayit amul mag naka la mën a toogee ci plateau di fen fen yu mag yi ay xale yu ndaw di la seetaan ñiy jàng journal di la seetaan nga foog ni lii mooy model pour jox xale yu ndaw yi nga xam ne dinañ am envie def journal franchement parler Serigne Saliou Gueye ak kii nga xamante ne mooy Pape Alé Niang yàq nañu lépp lu jëm ci turu journaliste ak média français pour ak média du moyes lu ko waral Ousmane Sonko lan la la ñamal lan la la jox daf la mën a jox loo mënta am ba ngay liggéey ci média Ousmane Sonko dafa xew dañ koo xam tey ngeen doyloo yàlla te bàyyi alalu àdduna arrêtez cette hypocrisie

parce il peut pas jàkkaarloog askan parler de manquer respect invité jël plateau bi transformer ko benn xuloo boo xamante ni yow mi doon seetaan doo fa jëlee dara parce que tu ne vas rien comprendre à cause de Serigne Saliou Gueye permettre kenn wax démb xuloon ak Gumba la xuloon ak euh, Fatou ab Ndeye Fatou Ndiaye moom xanaa ñëpp lay xuloon ça Sow pareil mm-hmm. mais Serigne Saliou toujours tu vois débat tendu débat houleux et puis débat personnel de ko bëgg di ko yóbbu ci ay nit xastante moo neex wax c'est-à-dire que c'est un dictateur il ne supporte pas la pensée des autres pour moom xalaatam moo ko doy Serigne Saliou gay xamul Ani Kassé la xamul dara parce que su xamoon dara day utiliser li nga xamante ni mooy intelligence am teg ko ci plateau bi nit ñi di ko ci mën a déglu parfois il faut dire des choses yoo xam ne dafa ànd ak cohérence ànd ak constance maanaam ki lay toog sax na ah Serigne Saliou kat lu mu wax amul laam-laame lii kat dëgg la dañ wax sax wax dëgg. moo gën a jékki ci kilifa de. voilà yow en tant que tey kii soog a dugg ci presse dugg ci média soo seetaanee Serigne Saliou gay ban impression ngay am. damay damay ragal est-ce que duma dellu ginnaaw sax parce que bu fekkee ni euh, lii mooy euh, journalisme lii mooy li nga xamante ne mooy exemple bi ñuy joxee yaakaar naa kenn bëggatul nekk journaliste donc nag comme niñ koy waxee saa su nekk rek kilifa dafa am koo war a euh, waxee ak noo war a waxee ak li nga war a wax parce que tay bo nekké ni yow kilifa nga ga tok sen TV sen plateau bobu ñëpp akoy bàyyi xel donc mom bu fa toogee na fay wax lo xamanteni ni loo c'est crédible ndax nak dafa am lo xamanteni dafa rafetul ci kilifa. Salut